mbokki jullit mbokki taalibe mbokk àdduna wërgal këpp jamono ju ne yéen ñi nga xam ne yéenay safoo di suivre li nga xam ne mooy télévision Touba Argentine TV seen mbégte jamono ju nekk moo waral sunu farlu euh, comme niñ ko doon defee rek ci première cérémonie mais deuxième cérémonie bi mel dañuy continuer ak rek euh, ku xool sama ginnaaw nga xam ne jana maa ngi janoog Baye Fall yi Ndigal Fall yi Baye yi nga xam ne jamono ju ñoo nekk ca waar wa bu ñu ne kon bu ko defee rek bala ñoo def dara dañuy jox suñu mbokk taalibe yi ñu def seen présentation njëkk ñuy tàbbi dëgg-dëgg ci jotaay bi euh, mbokk ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi lay ziar bu euh, la laaj tur wi ak sant wi ak fan ci Sénégal. maa ngi tudd Amdy Gueye dëkk Paline Ndëdd waaw ah, jërë ngeen jëf kooku mooy am Amdy Gueye dëkk Paleen Dënn ci Sénégal bu ko defee ñu ngi jënd ak tamit benn mbokk taalibe ah, jëru ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar. waaw bu baax ñu ngi lay la yelloo ziar baax a baax. tur wi ak sant wi ak ban gox ci Sénégal. waaw kii de ndongali Modou Ndiaye lañ ko wax dëkk Touba Mbacké Guédé Bousso. Serigne Modou Ndiaye Touba Guédé Bousso kon ba tey mel na ni beneen jëwri nañ si ginnaawam ba tey ci waa waañ wi ah, mbokk taalibe ñu ngi lay nuyu ñoo ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo fay mbokk taalibe bu baax bi Serigne Modou Ndiaye borom naylu Bon Ndiaye Naylu ñu bëggoon a xam moom ana fan la askano fay cosaanam. cosaan ne nag moo ngi cosaanoo Naylu ba tey it. tur wi na borom macha allah euh, kon bu defee rek ba tey dañuy janloo ko Diori ñi nga xamante ni moom tamit ci waañ wi la nekkoon ci Baye Fall la bokk Diori euh, ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar. waaw salaamaaleykum sëñ Lampa ñoo ngi lay nuyu di ziar waaw di ziar waa waa waañ yëpp. da yàlla di kontaan si liggéey bi taxaw tey jii di rafetlu kaddu yi fi gars yi taxawal yëpp wax dëgg yàlla kaddu alxuraan yee kaddu sukurlaxe kaddu xasida yëpp ñu koy rafetlu am kontaan si tey ñu taxawee daal bi suñ tubaab yi waaw di rafetlu lépp daal wax dëgg yàlla amuñu seen fay daal yooyu ñëpp daal ñu taxaw ak ñi ñu kontaan lépp daal wax yàlla. macha allah jërëjëf Serigne Ablaye mel ni nuyoo na nuyoo bu am solo moom tamit bu ko defee tamit. Euh, dañuy konte rek euh, labelu sunu fas jëmale ko ci laf yi euh, bu ko defee nag màggal ku ne day xam ne berne mooy base bi kon ñi bu nekk ci waañ wi rek maanaam dañu naan ñooy membre sëñ kon bu ko defee dañuy jàlloo ki nga xam ne mooy sëñ Amdi nekk jëriñu waañ wi ñu bëggoon wax sëñ Amdi ana tey ji waañ gi ana nan ngeen ko dundee ci wàllum xeetu berne yeeg ak ya ci aju waaw ñu ngi lay delloo ziar bu wér a wér di xantaan baax baax ci lii nii ngi nga ñu posé nii waaw wàllu beneen daal bu bëggee dégg dëgg moom wax dëgg yàlla lépp daal yem na lool wax dëgg yàlla taw feex na lool kawe na daal suñ jor waaw kawe na suñ jort lool wax dëgg yàlla allah nan nga ko gisee ci at yi at yi jiitu ak at yi weesu ak tey jii nii ci xeetu berne waaw maanaam daal dañuy wax ni at mu ñëw rek day gën a dàq daal ren moom yaakaar naa li fi am musta am wax dëgg yàlla ñëpp seede na li li am ren musta am waaw ñu ci kontaan bu baax a baax ba ñaan si yàlla suñu borom defal ñu xéewal dafa ñu tawféex ba képp borom defal yokkute ba nga yokkoo boobu heure bi déwénee nga xam ne yokkute nga ba yokkoo wala heure ñu ko defee Sénégal. masalla ba tey comme ni ñu ko waxoon sànq rek ñu janoog moom ba Serigne am di defee interview bu ndaw danañ moom ci kàttanu yàlla euh, dañuy def benn territoire benn tournée bu rek Serigne Mbaye ñu la doon laaj yow membre nga ci lii ci waañ wi euh, ñu bëggoon a xam ba ngeen dalee maanaam yëngu ci wàllum waañ bi ngeen dalee waaw Mbaye Lamp ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax su ma juumul yaakaar naa tey mooy cinquième édition wala sixième édition des naa ko teeru nag waaye maanaam chaque année rek bu ñëwee bu bu mujj a ñëw rek dàq morom ba ñu naan sëñ Tuubaa démbam tayam ju ne gàccal na démbam rek ñun moo ñu dal boo xoolee depuis altine démb ci talaata ji ba léegi 9h ba tay ji ñu ngi ci saal bi ci wàllum dugub ak saal ji ba léegi delluwaatuñu suñu kër waaw lépp nag liggéeyal sëriñ Tuubaa gis nga suñu yëre ni ñu tilimee ñu ngi saal bi ci suba ba léegi ñu ngi joxe bernde yi ndékki añ yi lépp ñu ko joxe naan gi dara jeexu fi nag ba léegi ni ñu ngi ñu ngi séddale suñu mbokki nasaraan saa ngi ñëw ñu ngi leen di berndeel baax a baax a baax fi may waxee yow di si segal si la ni xaar mu daanu rek ñu joxe reer yi macha allah Serigne Mor détail fi la am solo muy fasaaxa mooy loo xam ne si ni da cee def tënk gu yaatu loo xam ni euh, ku ci nekk képp ku ko dégg rek mën nga cee jël bind muy la am solo waaye nag euh, sëñ Modou Ndiaye bala ñu laa bàyyi dañ loo bëggoon a laaj euh, ndax mën nga ñoo limal yan xeetu naan wala yan xeetu fii de jury yoo xamante ne si ni jënd ngeen ko pour màggal gi pour doon ko benneel gan. waaw maam lamb lool moom dinaa ci sawar a tontu wax dëgg yàlla ndax maanaam gépp xeetu naan goo fa gis rek gu dagan gu amul alcool. mi ngi mi ngi ci barab bi tey jii dëgg yàlla dara manqué fi lépp lu nit bëgg a naan rek mu dagan am na fi tey lekk gi moom waxaale wu ma dëgg yàlla benn yaa ngi fi daal lu waaye soxla woo daal te mu dagan moom tey ci bis bi gerte jaaf sax ñëw na ci bis bi tey singom saa ngi fi lépp a ngi dëgg yàlla lépp ñëw na waaw sant Serigne waa rek sëñ bi daal moom li mu wax ni sant leen ma leen ma yàlla ci bernde ñu ngi ko koy santale jàng na ni kaamil jàng na ni xasida tax dëgg yàlla bernde na deret tóoru baax a baax waaw ginaar yi bari na xar yi bari na macha allah furu yi bari na naan gi bari na waaw di ñaan yàlla rek ñu koy gën di fekke daal di ko gën di man suñ doole daal ak suñu alal fas nañ yéene bisub Serigne Touba moom bu ñëwee luñ am def ko ci di ñaan rek sëñ bi boole ci milliardaire Serigne Touba yi lépp luñ am ñu delloo ko ci yoonu Serigne Touba yi defal ko képp ku di murit ak képp ku di taalibe ak képp ku kuy bëgg Serigne Touba rek waaw ñu ngi ko koy ñaanal loolu macha mu mel ni képp ko gis ni bi waxee sax ngeen xam ni maanaam yéen a dëgg lay wax ci liggéeyal Serigne Touba li wax rek maanaam jëfinam rek maanaam firnde na ko fanaan fii nekk ci li nga xam ni mooy wàccaay léegi lépp ngir jox léppam Serigne Touba rek euh, ngir bis Serigne Touba bëgguñ cee gis benn faay waaye nag mel na ci ginnaaw ba tey dinaa ñëwandi ci moom dañ cee fekk jëriñ xam ne defoon na présentation bi si Mor euh, dëkk-dëkk bu ñu naan noylu Serigne Mor Ndiaye ñu la doon laaj euh, maanaam màggal gi nga xam ne si ne màggal ngeen ko donc ay waa wàññi ñu boo xam seen budget dëgg ci màggal gi ngeen ndax nañ koy mën a leerale ñu xam seen budget fu mu toll wàllum xar yeeg ganaar yeeg yëpp bu ngeen jëndee ba pare seen budget ñaat la toll yi weesu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen baalu àq te di leen baalu ginnaaw bu nu santee yàlla jëli ci sangub sang yi muy Seydina Mohamed di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bu baax a baax ah di ñëwaat ci programme màggal bi ndax màggal gi moom buñ ko xoolee màggal yi ñu daan màggal ak màggal gi ñu màggal ren ci suñu wàllu budget bu ñu ko doon xaaj tey man naa la ne kon ñeent da koo def ñeent lañ ko multiplier ci li ñu xayma li def li nga xam ne fere nañ ko ren ñeent la ko duble kon kon màggalu ren moom daanaka ne màggal la ci biir màggal yi te dañuy ñaan yàlla nag bu déwénee xam naa da koy ëppaat ndax man li ma xayma fi ne nii xayma moom ci li ma xalaat ne xalaat naa ko moom. ci li nga xam ne fa nañ ko fere deux cent cinquante mille pesos yi moom danañ ko tekki taabal ji moom waaw deux cent cinquante moom danañ ko tekki taabal ji moom te dama ko xalaat noonu mais xam naa ne dana ko ëpp waaw ndax la ñu fere fee démb moom ci xeetu loo xamante ni bernde la moom wax dëgg fa yàlla la nga xamante ne xalaat naa ko xalaat na cent vingt mille yi moom teg na ci fële te foofa daaw buñ calculer lañ fa yóbbu woon ci xaalis trente cinq mille la woon kon par rapport ak ren jii moom dañ ko doubler multiplier kon nag daal affaire daal ni ma ko jàngatee ren ak fii ak waa ñi moom wax dëgg fa yàlla lépp lépp loo xamante ne xeet loo xam ne jullit na ko bëgg na ko soxla na ko am na fi te taalibe yi rek nag lañ ko fi indil. ma dellu soññ saa bopp di soññ mbokki taalibe yëpp fépp fu waay nekk tey dégg sama kàddu gi boo daanoo ñu gën a góorgóorlu ci daayira bi gën a jàppante gën a bëggante te xam ne nun ñu fi nekk ñëpp ay jullit lañu dañoo war a mën a jàppalante bëggante. ngir yàlla ak jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul lu ki nga xam ne danoo bokk lépp te mën na koo séddoo kenn da ca am dara kon nag nan sant yàlla julli ci sangub sang yi muy Seydina Mouhamed jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax a baax suñu xool nag a fees tabaarkàlla jërëjëf sëñ maam Lampo ku dégg ni mu waxee xam ni xolam fees na lool waaye dañoo dégg ci waxam mu ne li yoroon sama poos kon loolu day euh, firi ne rek moom dafa bokk ci trésorier yi ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum financement bi ci wàllum jënd yeeg yooyu euh, kon loolu day loo xamante ne lu rëy la lool macha allah kon sëñ Modou Ndiaye euh, yow ba tey bala ñu laa bàyyeen danañ la laaj maanaam lan moo sabab ndax daaw dafa mel dañ leen gisoon ci beneen saal gisoon leen ci beneen waañ Euh, waañ boobu ak waañ bi ñu gis ci maanaam par rapport différence bu rëy rëy ñu bëggoon a xam euh, la moo sabab maanaam coppitiku yooyu noonu ak euh, dox bi ngeen dox mu mel ni doxi fukki at la waroon doon waxi doxi juróomi at maanaam ak lii maanaam kéemaan googu lan mooy seen secret waaw secret bi moom secret bi du lenn lu dul secret bi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul muy mbóot woo xamante ne dafa nëbbu woon te di ko feeñal ci kaw jaami yàlla yi li nga xamante ni mbóot wi la mooy moonam li ñu xayma woon daaw ak li màggalu Touba ak ni muy doxee ak mbiri sëñ Touba ni muy doxe xam nga ne loo def ren bu ne moom danga ñaan yàlla suñu borom yokkute ba yëg ko te nun nag xam nañ ci suñu wàllu bopp ni am nañu yokkute ba yëg ko macha allah ndax kuñ doon laaj daaw 1300 ren ay murid yu takk taxaw joxe sukk joxe 3000 pesos ba ba tey jii fi may wax ak yow am na ñoo ñëwaat di ma jox xaalis ngir jëmmi màggal gii kon nun waruñu def lenn loo xamante ne lu sant Sëriñ Tuuba ci xiiwal yi mu ñu bàddali man de man Moodu Ndiaye borom yu laay wax de sant naa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bu wér te koy ñaan di ñaan ci kàttanu yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo lépp ci baaxub Cheikh Ahmadou Bamba balaa na gën si déen lépp lu ci waaye def ci bis bii yàlla na nga ci ràññeeku ba ñëpp xam na gis la nag bang dama koy ñaanal mbokki taalibe bi yëpp di ñaan jàmm ci dëkk bi di ñaan jàmm ci réew mi yëpp ak suñu réew mi di Sénégal di ñaanal ñëpp jàmm wax dëgg fa yàlla jàmm ji nu am yàlla na ko yàlla sunu borom gën a saxal yàlla defal ñëpp tawféex ñi nga xam ne yàlla dogal nañu ay mbokki taalibe ne ci dëkk bi te yàlla joxagu leen aw kayit ñu ngi ñaan ci kàttanu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi nga xamante ni moo man lépp te tëliwul dara ah di ko ñaan ci kattanu yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu jaar ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul balaa na a si déwén maa ngi ñaanal bépp mbokkum taalibe moo xam ne bàyyi nga sa liggéey wala bàyyi jégg nga say jéego ba ñëw fii lépp loo fi jéego yal na la ko yàlla defal mu di xiiwal di la ko defal mu di xiiwal ba bisub yamal xiyaam mu continuer xiiwalee baawal këyit yëpp yal na ko yàlla suñu borom jàppandel ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wax dëgg su ma ko nee di wax moom tabaarikàlla wax dëgg daal kontaan naa yal na yàlla suñu borom defal jàpp ñëpp daal jaam yëpp daal waa ñu daal wax dëgg ak soxna yeeg soxna ñoom anday asoog ñoom ñëpp ñu wax dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey ndax tey ci 6 heures du matin lañ fi ñëw ah te mënoon leen cee a fekk kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñoom bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla soxna yi jàmbaar lañ ci lool ci wàññi moo ngi ñaan daal mooy ba liggéey ñu yokkal ñu gën ñoo yokkal rek ndax wax yàlla am nañ ci solo daal ndax moom day am loo xamante ni xéwal sëñ Bamba soxna dañ cee bokk daal tabarkàlla jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf fi mu ne fi mu ma nga ca kaw fi mu ne macha allah jëwrin maanaam détail na fi détail ba am solo waaye nag wala ñoo dellu waat ci jëwrin dañuy dellu sëñ Ablaye sëñ mel ni sànq damaa ànd ak sama caméraman fekk ko ci biir ah, mu nekk ci lakk xar yooyu mel ni mag bi passé bi ñëwee ci loolu ko fekk ñu bëggoon xam sëñ Ablaye maanaam ana lan ban pëseef nga wane ak maanaam ah, ba njàmbaar war ba tax waa daara bi wóolu la ci li nga xam ni mooy ber xam ni ni ko Serigne Touba fonkee ba euh, mbokki taalibe fenk ko noonu ñu jox la lu toll ni euh, ngay lakk xari maam di defar yooyu yëpp ci aju maanaam lan mooy sa secret ba sabab mbokki taalibe di la jox loolu ak maanaam tey ana nan ngeen préparé bis bi ak nan ngeen defaree ber nay tey. waaw salaamaaleykum ñu Lam Fall ñu lay tontu wax dëgg yàlla di si kontaan si wax jooju nga laaj boobu nga ñu laaj pour ñu tontu la ko wax dëgg yàlla si am fierté la wax si tontu boo xam ne day mucc ay top la waaw feete bi ñu am rek ngir liggéey sëñ Tuubaa rek waaw liggéey sëñ Tuubaa rek lañ am feete bu wax dëgg fa yàlla euh, bëgg a liggéey sëñ Tuubaa seey si rek wax dëgg yàlla am kontaan si ñëpp wax dëgg yàlla ndax suñu mbokk yi yëpp kenn ku nekk poste ya nga nekk la liggéey ba nga nekk taxaw nga sa la nga sa taxaw lépp lépp lépp di si gërëm seen mbokki soxna yi fi ñëw tamit dañu jàppale si liggéey bi ndax euh, màggal yi fi doon jaar année prochaine bu wër nag màggal yi wax dëgg yàlla ndax euh, góor dong si wàññi dëgg la dana am yéene pour def lépp waaye nag euh, waañ moom bu ñu ko dee féetale yaakaar naa soxna yi tax ñu koy wax waaye wax dëgg yàlla ñun nag fi ñu féete wax dëgg yàlla di wàllu lakk beeg yooyu dañ see am lii dañ see am yéene waaw am yéene lekk am si bëgg-bëgg tamit am si tamit yéene joo xam ne yaakaar na ne bu ñu defee neex doomu aadama yi ba nit fi ñu féete sa lekk yéene rek lañ si am wax dëgg yàlla di kontaan si bu wax dëgg yàlla ñun suñu xol daal moo fees waaw di ñaanal mbokk taal bi yëpp ku képp ku teew bi si am boppam bi daal yàlla na si am boppam fay boppam waaw lépp loo xamante ni nag ña waaye sàkk na si ñaan yàlla na la yàlla yàlla na leer nañ waaw ndax moom bis bi moom lépp lu si waay ñaan jàppal ni moom balu tàkk la waaw lépp lu si waay ñaan jàppal ni balu tàkk la waaw képp fi ñëw daal yàlla na suñu borom faj say aajo waaw góor ak jigéen saxir baatin yaa gisal sa bopp yaa déggal sa bopp ñi toog ni ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne ñoo yor waañu daayira Jazbul Xuloob jamono ñu nekk kóolite gi nga xam ne daara Jazbul Xulub am na ko ci ñoom moo tax jamono ñu nekk muy feral seen mbégte ci ñoom ba tax na saa yu ne lépp loo xamante ne xeetu berna la wala xeetu lu mënti doon rek maanaam ñoom ñi ñoo ñu koy taxawal waaye du ma dem ko te joxuma leen ngeen tàggatoo ku ne kenn ku ci nekk ci gàtt mu nekk tàggatoo boo xam ne général général lay doon képp koo xamante ni maanaam joxe nga sa message jox sa morom mu joxe message am muy tàggatoo boo xamante ni moo xam noo ko yëgee moo xam noo xam si ni moom nga ko yëgee pour lancer message yi nga xam ni euh, ñooy nekk ci yeneen di màggal Euh, bis suñ Tuubaa bi ngir fonkel guñ ko war a fonk wala cër buñ ko war a jox wala boog suwaat euh, waa Sénégal maanaam euh, xalaat bi ñuy xalaat ci ñun nan lañ war a màggalee ndax ñun fi ñu ngi ci bon condition pour màggal gi ndax ku xamul suñuy maam ñoom xamuñu mën nañoo jàpp ñun ñu fi tumuranke nañ fi moo tax ñëwuñu ci màggal gi Sénégal pour ngeen jox leen ak leeral la ku ci nekk rek ngeen partagé ko bu ko defee mu doon sunu tàggatoo ñun ñëpp. waaw jërëjëf Tombrel ñu ngi kontaan ci kàddu yi baax a baax am na solo waaw di jëkk wax ci problème saal boobu nga waxoon fan màggale woon daaw ren ñu màggale fii am na solo parce que mbirum sëñ Tuubaa moom yokkute la rek lii xeetu yokkute la san nañ baax a baax baax parce que lañ fa defal daaw liñ def fii liñ def fii ren ko foofu téeméeri junni yoon kon gën sant sëriñ Tuubaa wér wér wér wér sant nañ sëñ Tuubaa wér waaw di xam ne lii moom wax dëgg yàlla ànd bu neex la dëgg la parce que gars wax dëgg yàlla mënoo fi xàmmee taalibe seex ak taalibe sëriñ Tuubaa ci liggéey tey seen bopp kon xam nga san nañ san nañ sëñ Tuubaa bu wér daal xol fees na bu baax a baax san nañ sëñ Tuubaa bu wér a wér yal nañ sëñ Tuubaa fayal boppam di kontaan ci ñëpp nag wax dëgg yàlla am na solo trop wax dëgg yàlla kontaan nañ ci ñëpp simila sëñ Mourou Ndiaye waaw man de fi may tàggatoo maam lamp moom mën naa bañ a gudd damay rek ah di soññewaat sama bopp day soññ ñëpp rek ci liggéey sëriñ Tuubaa bi te xam ni amul lu dul moom ñu gën cee gën a góorgóorluwaat bu baax a baax a baax gën a topp ci suñuy jëwriñ lépp lu ñuy digal ñu koy def tey sàmmonteeg euh, àq daayira bi maanaam di teg day teew tey teewal maanaam bu daayira jotee ñuy dem daayira te lépp lu ñu yor bu sëñ bi wootee ñu def ko ca te xam ne moom rek moo ñu jariñ moom rek moo fi des jamono ñu liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo fi des kon maa ngi soñ sama bopp bu baax a baax a baax a baax baax di soñ ñëpp képp ku may dégg daal maanaam ñu gën a fonkat sëriñ Tuubaa ah, te xam ne amul lenn lu dul moom di teew daayira di teewal màggal gi lépp lu ñu am buñ ko wootee lépp lu ñu sase doonte doon sase 5000 pesos bu ñu yoree 5000 ko joxe nga xam ne sëñ Tuubaa dara ku ni damaa bëgg a doon ci milliard milliardaire Serigne Touba su ma amee milliard li jël Serigne Touba nag dañoo lay laaj 5000 pesos nga denc 10 000 pesos sa walis da joxoo 5000 pesos boobu yaakaar naa bis boo amee milliard ko def ci màggal Serigne Touba yi kon maanaam li ñu yor te ñu koy laaj ci màggal Serigne Touba ko génnee bu dee nañ ko génnee jeexal sax xëy dellu ca kaase ba Serigne Touba dañ jox lu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw asalaamaaleykum waaw ma foofu li ma ciy dolli si sëñ Modou Ndiaye terminé foofu laay tàggatoo dama bëgg a soñwaat mbokki taalibe yi rek ñu gën a xam ne daayira bi nañ ko jëmmal te gën koo taxawu te xam ne yoon wi moom bërëng la ci euh, bërigo la ci mbartal ku bërëng mu dem ku bërëngul mu dem kon nag mbokki taalibe yi bu demee ba toll ci bisu màggalu Tuuba ñu tobb wu sas na ci mbokki taalibe yëpp bay seen waar te murit laa tëdd sa biir kër naa murit laa bu baa nga ñëw toog jàpp naa màggal gi neex na te te la war ca màggal ga defoo ko bay boo nga xam ne yaa ngay nax sa bopp liggéey sëñ Bamba lim am yombut te képp ku ci bëgg a jariñu da ngay dugg ci naaju tàng di del lu diis kon nag mbokki taalibe ñoo ngi tàggatoo foofu ba beneen yoon yàlla nañ ko teewee ay déwéni déwén barke Alaaji Fàllu